Macky Sall inaugure l'avenue mm-hmm. Macky Sall. Mm-hmm. xam nga loolu nit di ko dégg sax ci 2023 dafa yenuwul maanaam dafa ridicule. Mm-hmm. beneen bi mooy ci loolu laa waroon njëkkee mooy man dama d'accord que ni avenue boobu warul tudd Faidherbe. loolu il faut ñu d'accord ci d'abord. parce que Faidherbe bu Safiatou Cissé. Faidherbe bu mooy ki nga xam ne moo jiite woon colon yi fii ci Sénégal gii di lakk ay dëkk. di rey ay nit. di violer ay jigéen kooku waruñu ko tuddee am. mënuñu ko tuddee sax buntu douze ci Sénégal. ba koy tuddee am mbedd. loolu historiens yi wax nañ ci wax ba taay Iba Der Thiam mii yàlla na ko yàlla yërëm xaar ko àjjana bind na ci lu bëree bëree bëri. loolu il faut que sénégalais yi d' accord ci moo tax ah, fédère bu ga ca ndar tamit man noonu laa gëmee ne dañ ko waroon a rëppeel mu daanu ba ko ba ko fa ngelaw li daanu waruñu ko woon yëkkatiwaat. parce que on c'est-à-dire c'est extraordinaire Sénégal da ngay gis koo xam ne dalaa mbugal violer say say say maam rey ci lakk ay dëkk ay dëkki dëkk mu lakk ko nga tudde ko am mbedd ba pare loolu doyul nga tudde ko am monument ku ko bëgg di dindi ñu ne noonoo ci patrimoine ndar la bokk mais patrimoine ndar ëpp na loolu maintenant suñu jug suñu d'accord ci loolu que ni fédère moom waru fi am lu ñu koy tuddee man loolu laa gëm te bari naa ci moroom yaakaar naa léegi dañ naan est-ce que war nañ ko tudde Macky Sall gis nga man dama am benn problème mooy maire Dakar Plateau bii di Alioune Ndoye. Alioune dañ ko war a woo ci ruq wax moom parce que Alioune Ndoye quand même dafa j'ai l'impression que ce gars-là xamul ne 2023 lañ nekk. Mhm. culte de la personalité dafa xewi. c'est-à-dire nit koo xam ne dañ lay tagg di la taggal say maam di la teg naan la yaa fi gën yaa man lii yaa man lii loolu dafa amatul taawu Senghor sax mënoon nañ ko comprendre te Senghor nanguwu ko woon. Mhm. te naa la jox firnde. Mhm. Abdou Diouf ci boppam maa ngi koy sax Abdou Diouf moo bind moom. ne bi mu nekkee premier ministre Senghor dafa am benn ndaje bu mag bu amoon Dakar ndaje bi ñi ko doon defal mooy le mouvement panafricain des femmes ndaje bu mag léegi bi ñu dajee à Dakar Caroline Diop bu dëkk ca Mbour mu lañ tuddee stade Caroline Diop jëkkëram doon Demba Diop bi ñu tuddee stade Demba bi nga xam ne moom dañ koo faat ci Thiès Caroline Diop moomu Abdou Diouf nee na moom la jox kàddu pour mu war a wax ci turu Sénégal dalal gan ñi quoi comme ni ñu ko waxee. Hmm. Caroline Diop moom également moom la sengoor waxoon ne parti socialiste yëpp nañu ànd jàppale ko pour que moom mun jiite mouvement panafricain des femmes donc Dakar la ñuy defee vote bi te Caroline Diop mooy candidatu Dakar pour jiite ko. Hmm. donc moom moo ko moom moo ko war a jiite naturellement day gagné. Hmm. mais Abdou Diouf nee na bi ñu ñëwee ci cérémonie bi Caroline bi mu jëlee parole dañ doon xaar mu wax ci jigéen ñi jigéenu Afrique yi seen i jafe-jafe nangam ak mais Caroline nekk fa di tàgg Léopold Senghor. naan sengoor moo fi def lii mooy lii mooy laa. bay dem sax di citer ay poèmes Senghor. ça fait déglu baax li mu la wax pour wax la ne Senghor sax parfois moo raw Macky Sall. nee na Abdou Diouf nee na bi cérémonie bi jeexee cérémonie d'ouverture bi Senghor daf ko woo parce que moom moo ak Senghor bi ñëw ànduñu ku nekk ak sa cortège mais Senghor daf ko woo dugal ko ci cortège am. bi ñu duggee ci Seng ci ci cortège sengoor Senghor ne ko Abdou mu ne ko monsieur le président mu ne ko Caroline teg nañu gàcce. Abdou ci livre mu ne ko Caroline teg nañu gàcc loolu mi ngi amoon 1971. Mhm. mu ne ko Caroline teg nañu gàcc Abdou Diouf ne ko ah bon comment mu ne ko li mu wax du waxu fi kenn wax loowu ko ne ko Caroline mënul jiite le mouvement panafricain des femmes seetal seet leen keneen. Mhm. Caroline loolu moo tax jiitewu ko naa benn algérien sax lañ mujj fal pour mu jiite ko. Mhm. te lu mu ci jublu woon mooy bëgg lu neex Senghor yow léegi nga toog 1971 xam naa boobu àllindoo yi juddowul wala bu juddoo tamit lu ndaw la nga toog ba deux mille vingt yow nga fekk un président en exercice nga ne da koy tuddee am mbedd moo xam ne moom ci président président bi moom mooy ñëw inauguré ko lan lan moo ko gën a doy waar ci culture de la personalité mm-hmm. nga xam ne yooyu ay temps Mobutu bu Zaïre lañ ko daan gëj a dégg. Abdou Diouf nee na le même Senghor mas na am benn cérémonie bi mu dem fii ci théâtre national Daniel Sorano benn waay jël fa parole di ko tagg. Abdou Senghor daf ne nii Abdou Diouf Abdou Diouf jox ko noppam mu ne ko nee ko on n'a pas besoin de ça. Léopold léegi Senghor jaar fi Abdou Diouf jaar fi Ablaye war jaar léegi Macky Sall ñëw ñu ne c'est un président qui est né après les indépendances mu jiite réew moo xam ne gis naa léegi ci chiffres yi ANSD mujj a génne ñu ne dix huit millions de Sénégal lañ treize million yi ils ont moins de trente cinq ans treize millions. Mhm. ils ont moins de trente cinq ans léegi laa ko lire. Mhm. dans ce pays yow. nga taxaw fa un maire naa da ngay jël avenue boo xam ne yow da koy tuddee le président bi nga xam ne il est encore en exercice mais Macky Sall su defee ci réew mi lu rëy lu jar ñu koy tuddee président yeneen président ñoo koy remplacer décider lool waaye est-ce que doxalinam est-ce que doxalinam tamit du firndeel yenn doxalin yi nga xamante ne yeneen jëwriñ yi moom la ñuy amal parce que tamit ñoom dañ leen dañuy wax ne ku la woon bët fu ko neex lay fu ko fu ko neex lay xool. Euh, doxalinu cogg la ñuy doxal loolu mooy doxalinu cogg mooy yow. waa ji lu ko neex rek nga koy wax pour looy am ci moom c'est aussi simple que ça sa fait jurul ñu koy wër-wëral mhm. lu ko neex ngay wax pour am li nga xam ne te loolu lu tax mu nekk ci danger ci président mhm. mooy président bi am habitude di loolu mhm. su déggee une voix discordante danaan kii def maa contre te Macky Sall loolu mooy li ko dal ah. Macky Sall réew mi day dem ci sëriñ ñu wax ko lu ko neex mu dem ci média yi ñu wax ko lu ko neex mu dem ci parteem ñu wax ko lu ko neex su déggee une télé bu mel ne faj Fadjri wax ko lu ko neexul mu ne ñii dañ maa contre loolu loolu rek moo koy jur loolu rek moo koy jur or or loolu rendre ko service président yi nga xam ne ñoo Alioune Ndoye mii Alioune mii ko tuddee su ma fàttalikoo euh, côté mille su suma juum wala un peu avant Karim Wade Karim Wade doomu Ablaye wadd mas naa ñëw fii faj Fadjri ne day défier publiquement Ousmane Tanor Dieng pour que ñoom ñaar ñu ñëw débat parce que boobu y avait un problème si chiffre aussi yi liñ fi investir affaire yooyu mu ne ñoom ñaar ñëw débat Alioune mii moo daggee këram jël ay dossier bi yëpp ñëw fii ci Walfadjri ne Karim Wade moromam la moom lay débattral et non Ousmane Tanor parce que Ousmane Tanor beneen génération la mm-hmm. gis nga Alioune Ndoye moment boobu da nga koy gis nga ne kii c'est un cadre sénégalais te c'est un cadre sénégalais ñi nga xam ne ñoom la ñu miinoon nga xam ne dañ fiy nekk di wax suñu président yi lu leen neex pour am ci ñoom dara mais Alioune Ndoye ba mu nekkee ministre ba léegi il fait pire. il parce que lan la war a wax Sénégalais pour expliquer leen ne leen lii moo tax ma tuddee am mbedd Macky Sall ba naan ñu c'est un homme d'exception Sénégal amul un homme d'exception dafay amatul. la classe politique ay Sénégal lañ ko comme ñëpp. kenn kenn euh, da nga ci mën a incarner benn leadership jiite gars yi ne leen yoon waa ngi ni ñëw leen ñu ànd ànd ak yow dem. soo ko soo ko capable tu n'as rien d'exceptionnel nekkuñu jamono joo xam dañ naan Mamadou Dia Senghor nangam ak nangam ay temps wu. non mais euh, rédaction bi amal na si ab euh, taxaw seetlu. ndaxte mhm. euh, amal nañ ab reportage foofee sa avenue Faidherbe devenue maintenant avenue ma Sall. Mhm. yenn si Sénégalais yi nga xamante ne dañ ko dañ ko dañ leen inter inter interviewé. Mhm. ñoom li ñuy xamle ne mooy dañ ko rafetlu que ni nañ nañ dindi genre turu Faidherbe DER bi wala turu euh, ñi nga xamante ñoo ñu coloniser woon ñu andi turu digne fils euh, du pays mhm. waaye tamit euh, ba léegi si seen wax ñu ngi xam le ne Faidherbe même buñ dundee turu Faidherbe bi mhm. ba léegi buumu jaam mënul jóg Sénégal waaw mais léegi buumu jaam googu ko war a dindi ñuy jiite tey doon naa ñu ne président bii kat moo fi def loo xam ne ñëpp xam nañ ne l'époque Faidherbe moom kenn dootu ko waxati mhm. ñu ne kon nañ dindi turu Faidherbe def fi turam mais Macky Sall ak premier ministre nga xam ne ñoom nee nañ le seul problème la avec la France c' est que a pas de problème. y' a pas de problème oui bu ñu remplacer Faidherbe def leen man man contre vraiment wax naa ko may commencé mhm. contre ma ñu remplacer contre ma ñu tuddee Macky Sall mais dama ne. Mhm. mënoon nañ bàyyi bay beneen président ñëw. Mhm. yeneen jamono xam nga tey jiite na Sénégal quatre vingt ba daanaka bi muy waaj bi muy waaj dema ah. mhm. lay doog commencé. di soppi turu yenn kii di fa def turu Léopold Sédar Senghor. Mhm. te Abdou Diouf Senghor a ko def président séngoor moo def Abdou Diouf président stade Léopold Senghor bii Sénégal 92 gii amitié la tuddoon. alors qu'il était premier ministre. oui kii bii nu mu tudd aéroport bii aéroport Yoff lañ ko daan wax. Mhm. bi ko Abdou Diouf di soppi di ko tuddee ay aéroport Léopold Sédar Senghor soriwul. aéroport Macky sàll bi mu nekkee président la ab Ablaye wadd ay nu ñu koy waxee euh, am euh, stade wala ab Ablaye Wade moo tuddee Blaise Diagne euh, aéroport Blaise Diagne ba muy faatu suñuy maam judduwuñu Blaise Diagne sama xawma tax ñu koy tuddee aéroport mais bon quand cela ne tienne mm-hmm. Abdou Diouf Ablaye Wade ko tuddee Macky Sall la ko Euh, loolu waajur wooyu mënu la ca kii ba euh, jëm ñaajo mhm. voilà beneen président mënoon na ñëw mhm. tuddee dindi avenue Faidherbe boobu tuddee ko Macky Sall mais est-ce que mais le fait de de dire le président Macky Sall inaugure une l'avenue Macky Sall mais ça pose problème mais Moustapha foofu tamit est-ce que tamit mhm. n'est-il pas temps euh, d'honorer les Sénégalais ou bien euh, comment les Sénégalais de leur vivant également parce que ñu bëri dañuy bàyyi parfois ba ba nga dëddu ñu soog di lay di lay di lay. di lay rendre hommage. Abdoulaye Wade bi ñu koy tuddee président euh, stade mi ngi dund wala dundul. ngi dund de mhm. yàlla yàlla na dundaat mhm. Abdou Diouf bi ñu koy tuddee kii mi ngi dund wala dundul. waaw ah, mi bi ñu koy tuddee euh, euh, stade bi mi ngi dund. Mhm. bi ñu koy tuddee nu ñu koy wax aéroport mi ngi dund. wala déet mais Macky Sall yàlla na gudd fan dund ba ca kanam a kanam. mais mënoo nekk ci réew moo xam ne avec tout ce qui s'est passé. depuis deux mille vingt et un ak léegi tout ce qui s'est passé nga ne man ministre yi eh, xoolal mm-hmm. Safi <laughs> li tax affaire bi ridicule mooy su fekkoon ne dafa nekk dafa nekk Macky Sall dafa juge mm-hmm. beneen président remplace kooku toog ba mu neex ko mu ne Macky Sall kat mérito na comme ni ñu tuddee Abdou Diouf tuddee Ablaye Wade tuddee Senghor moom it mérito na ñu tuddee ko dara ci réew mi mm-hmm. wala un maire ne méritoon tuddee ko dara mais yow Macky Sall ñaar ñu ko tuddee xam la. Mhm. des ministres yu muy siégé ndool tous les jours conseil des ministres. Mhm. chaque mercredi Mansour Faye bu Saint-Louis ak euh, Alioune ministre ci boppam moom ministre mhm. moom mooy jël li Sénégalais yëpp bokk na ko tuddee nañ la ko. mais loolu xel moo ko nangul nañu waxante dëgg. d' accord léegi euh, ñu ñu dem nag. Alioune Ndoye moomul Dakar Plateau du doomam jum jur ku ko neex ko. on me dira que c'est le conseil municipal mais il faut arrêter moo nañu bàyyi ba ba keneen ñëw. d'accord euh, c'est le cri du cœur de Moussa Fadio. non du cri euh, yàlla xam na du cri du cœur parce man la waa ji waxoon ñu tuddee ko ñu bañ ko du tee su ma bëggee su ma amee soxla foofu doxi ko mais dama yaakaar ne rek ci ci république ak ni muy doxee. Mhm. loolu daf cee rafetul. Mhm. Alioune Tine wax na ko et je d' accord avec lui c' est une mauvaise image qu'on donne du président Macky Sall. c' est à dañ koy dañ koy présenter comme. Euh, dictature dictateur bi ñu koy tuumal. oui c' est image qu'on de lui Macky Sall boo fii ne boo liiree la presse euh, yi ci jot bi dañ naan Macky Sall inaugure l' avenue Macky Sall. Hmm. mais dafa yenu xel moo ko nangul en fait. Hmm. loolu mënoon na ñàkk. comme kenn nit bu juddu woon di ngénte boppam. exactement juddu ngénte sa doom tudd ko sa bopp. Hmm. amul d'accord euh, ñu dem nag. Euh, sa beneen service ah. voilà Moustapha nga yaakaar ne tamit. Mhm. jotul ñu wax si kaawu Fatoumata kan ak Amadou Ba mi nga xamante ne dañ leen a tegoon loxo gannaaw ba nga xamante ne dañoo fësaloon lii nga xamante ne mooy. Mhm. dossier médical bu Ousmane ko xam nga dama ci liir tey ci presse bi lu lu am solo. Mhm. mooy kàddu yi nga xam ne Amadou Ba ci boppam moo ko wax. ak Fatoumata Kane. Hmm. moo ñoom ñoo ko wax ci li presse bi bind te presse bi suñu waxee ne ñoom ñoo ko wax dañ koo jëlee ca lañ wax en